asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen mbokk yi nekk ci urasul irada bi yëpp ñoo ngi leen di nuyu di laaj seen jàmm ak seen jàmm yaram di ñaan yàlla suñu kàddu fekk leen ci jàmm ah diggante démb ak tey dañoo seey gone yi di wax waaye dafa fekkoon ci ay yitte yu ñu nekk rek moo tax daanaka déggu leen ñu démb moom dafa am sama baay bu fi ñëwoon gane si ma gane si ma waaye moom daanaka rek dama bëggoon muy yendu fanaan fanaanaat waaye defu ko waaye moo taxoon démb jotuñoo dugg ci biir mbooloo mi pour waxtaan ci dara waaw lii Serigne Cheikh njaay wax di xaatim sax moom ak Suleymaan ci boppam xaatim sax xam ak yonent yàlla Ibrahima may seen maam ñoom ñëpp xawaatim yi ngay gis ca faraa ina ya la la la nekkoon ñoom ñoo ko doon def kenn xamul nag faraa ina yi nan lañ ko bokko jëlaateeg fuñ ko jëlee waaye boo demee ci tafsirul quraanil azim lil imam tantawi dina la ko fa génneel ba mu leer naañ génneel la xaatib ak fa mu sosoo ak ilmu nujum ak lépp waaye loola moom xam-xamab te jamonoy faraina faraina yi daal ca la déparé Suleymaan bun Daawud ci boppam nag amutoon xaatim bu bu mu moom jaaro boobu ñu wax ne moom la moomoon itam gaa yi ñu ngi koy wax rek waaye kenn mu mënagul ne eh, jaaro bii day xam mu kenn indigul dalil ne di yonti yàlla Suleymaan ab jaaro la daan takk ca mbir ma nekkoon am na ñuy dem bay wax naan jaaro ba seytaane da ko fëkkoon dem Souleymane daf di wëndeelu ci àll bi <laughs> léegi yi seytaane dikk toog palaasam remplacé ko fa baamam diir nañ ko waxee ba mujj mu fab jaaro ba naaw sànni ko géej aw jën lekk ko nit ñi dañoo mën a dañoo mën a théâtre yàlla buur bi subhanahu wa taala la muy def ci ab yonentam du du lu ñuy def ci ab jaaro di ci ca bind mu di ko takk fi mu ne nii réew dañuy taj réew mi waaw jaaro bi nii jaaro bi naa jaaro bi loolu dara du ci dëgg yaa ngi dëgg yonent yàlla Suleymaan amul woon ab xaatim déedéet xaatim buñ ne xaatim bi mooy xaatimu Suleymaan mu di ko bind amut yonent bu yàlla masa yónni ngay bind ay xaatim amut yonent yi yàlla yónni yëpp ñii dañoo ñëw nekk ay anbiya u ñi nekk ay anbiya u wa nga xam ne ñoom dañuy dañoo am téere ñii amuñu téere waaye dañuy nekk di woote ci diine yonent ba leen jiitu woon te yor téere waaye yonent yàlla Suleymaan bun Daawud yorul ab secret boo xam ne dañ ko def ci ab jaaro loolu wax waaye amut yonent yàlla Suleymaan bun Daawud yërewutoon ay xawaatim ak yu ñuy dog di sol ñu naan mu doon jibar loolu amut ma ne xaatima mag yontu yàlla ibrahima ma may seen maamaamaati maamaati maam xawaatim yi ngay gis ca jamonoy faraina yi ñi ngi woon fii ramlu ca jamonoy faraina yi ñi ngi woon fii ilmu nujum ca jamonoy faraina yi ñi ngi woon fii loolu yoonu lislaam nekku ci amut ci diiney lislaam astronomie xaw ma astronomie lañ ko xaw ma ci tubaab waaye amul ci lislaam amul ci lislaam loolu dafa war a leer ilmul xawaatim yi ñuy defit amul ci lislaam dañ ko importé indi ko ci lislaam waaye noonu ñu koy dogee def ay renseignement yoog turaab yoog kursi yoog yooyu Eh, nga xam ne eh, juróom-ñeenti dog gii ni xaatim am na yu imam xasali jàngale eh, aya un bi xatrama yaalin jali sun dam yaalin atati sun watati sun sanxatati sun ada yaqati sun tawta yaalin xawaatim yooyu noonu mu defee ay koñ kaare loolu du ci lislaam lañ ko jëlee xanaa kay dañoo fekkoon fara ina yi di ko def di ci def yeneeni yëf yahudi di ci yahudi yi biñ ñëw fekk ko fi di ko def di ci def yeneen i yëf islam ñëw fekk ko fi jël asmaulal husna dugal ko ci asmaulal husna yi nag dañ ko cee dugal dañ ko cee dugal maam daa mel ni xawaati mi yooyu ndabul defukaay la loo xam ne lu neex waaye def ko ci mi mel mel ni ab booli buñ teg fii rek kii ñëw def ci sombi kii ñëw ci def ci suppu kànja kii def ci cere kii ñëw def ci laax kii ñëw ne man dama ci rooti am ndox kii ne dama ci yenu mbalit waaye même benn bool bi la rëddi xaatim yooyu muy musallas ba ci alfu buyut loolu lépp ca jamonoy faraayina yi la fi nekkoon l'islam nag fekk na ko fi au lieu ñu jële ko fi lu may ñu daal di jël tur yàlla yi di ko ci dugal loolu moom ci jamono yi yonent bi amut woon gannaaw bi yonent jàllee la am bu islam tasee ba dugg ci yeneeni yeneeni xeet ak yeneeni askan Euh, askan yooyu indiwaale xam-xam bii dañ ko lislamisé au lieu ñi def ci lañ ca daan def ñoom ñu ci def ay yàlla waaye nag ah yeneen bi jàngale woon ay xawaatim waxuma nag asmaa yi asmaa yi ñoom duma ci wax ah, ndax xam-xam la boo xam ne moom du mënuma cee wax daal li gën a gàtt waaw dama cee mënta wax waaye li ma li ma bëgg a tax daal mooy yeneen ci yàlla Suleymaan bun moom la ko yàlla joxoon nekkutoon ci ab jaara déedéet dafa am naa ak Suleymaan da xam ne moom la yàlla wax te boobu Suleymaan di gone ah, la ko yàlla doon jox ñu jox ko ko néegut ba doon mag ñu di ko tëggal ab jaaro ñu di ci xaatim ay mbind buñ ci xaatim ay mbind ak ak yónintu nun waaye ma ne ak yónintu nekk ci jaaro nag sama gaañ yi ak yónintu mun te nekk ci jaaro di kon ku ko wekki wekk rek doon ab yonent ne yonent ba loolu xam nga ne yàlla lu jël ak ak risaala di ko def ci xaaj ci ab jaaro wax dëgg yàlla waaye loolu at ah, yi ñu koy wax amaa téere boobu ñuy dàkkental nag naa Suleymaan ko def yàlla lu leer nañ la wax jinne yi ak shayatin yi ñoo jël xam-xam boobu nga xam ne ca jamonoy faraa'ina yi la fi nekkoon doon ak njibar yonent yàlla Suleymaan bi mu génnee àddina te nga xam daan jàpp jinne yi di leen tëj ay kaso bu bi génnee àddina ba jinne yi liibar la ñu génne nag xam-xam boobu ñoom jinne yi di ko jox ko ñu naate ci biir nit ña ne lii la Suleymaan yore woon nit ñi yàlla ne déedéet wa maa kafara Suleymaanu de walaakina sayaatiina kafaru walaakina sayaatiina kafaru yuallimuuna naasa sihra wa maa unsila alal malakayni alal malakayni la du malikayni ah, alal malakayni la ñuy jàng waaye nag alal malikayni la ibnu abbas moo ko wax alal malikayni bi baabi la haaruuta wa maaruuta wa maa yuallimaani min ahadin ataa yaquulaa innamaa nahnu fitnatun falaa takfur fa yataallamuuna min humaa maa yufarriquuna bihi bayna al-mar'i wa zawjihi wa maa hum bidaariina bihi min ahadin illaa bismillah aaya bu leer nañ ñi bu tegaloo noonu la ko noonu la ko alxuraan nettalee loolu ñuy génne di ko adressé Souleymane Souleymane du ab yéefar bay def ak njabar waaye seytaane yi nekkoon gannaaw Souleymane te gëmuñu ko woon ndax mbooloo moo gis ay ay naafeq ñooña ñoo génne xam-xam boobu adressé ko yonent yàlla Souleymane yàlla ne déet lii ngeen di wane ak njabar la te Suleymaan musuta weddi yàlla kon loolu moo di ak njabar ne weddi ab jibarkat weddikatu yàlla la waaye nag seytaane yi ñoo weddi yàlla di leen jàngal ak njibar di ko adressé ci Suleymaan wa maa kafara Suleymaanu walakinna sayatinu kafaru yuallimuna naasa sihra wa maa alal malikayni bi babila aaruta wa maaruut kon am na ci biir l'islam lu te l'islam da ko noonu ñu ko lislaam yi see nag te islam fekk ko fi jinne yi Suleymaan ya ko gëmoon ak ñi ko gëmut ba mu fa jógee noona lañ ko jël daal di koy daal di koy yóbbu daal di koy Suleymaan niise waaw jine jine jine yéen yàlla ba bañ fi ba noonu lañ jëlee xam-xam boobu daal di koy Suleymaan niise maanaam daal di koy adressé ci im ci Suleymaan lii nii doog di sol daal wàccut fenn fenn fenn ne yonent bi xam na lu ci bokk wama wala taqtu'u bi yaminika idan lartaabal mubtiloon ndagam yonent bi alxuraan jii la ko yàlla ne doo ko bind sàkkantama mi bind leneen ginnaaw yonent bi daawul bind daawul maas nag kon fan fu jële xaati bi léegi fan lañ ko jële ci moomat indiwu ko <laughs> xam-xam la moom dëgg la waaye du xam-xamam diine islaam ña ko doon jëfandikoo ci kéefar la ñu nekkoon waaye am nañu ko lislamisé bay jël ay tur yàlla di ko ci dugal waaye nag ah tur yi ñuy jaamoo yàlla daal moom duma ci wax ndax loolu moom du luñ mën a wax waaye ndoxel yii moom dañ ko lislamisé dugal ci tur yàlla yi de waaye ndoxel yi moom fi lañ ko fekk fi la ko Suleymaan fekkoon itam amma nag li ñuy wax baatin baatin moom bu dul tasawuf man xawma ko te baatin mooy jikkoy biir yi yu baax yi ak yi safaanoog mbaax yi nekk ci xol ak bakkan ñi di ko yar loolu mooy baatin waaye bari na loo xam ne nit ñaa ngi koy sukkandikoo ci jii jamono comme ni ko Cheikh njaay Mbour waxee noonu la demee amul ci lislaam yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, xëy na nag ñi ñoo ko ci indi Cheikh sax dafa dafa mel que dafa yaakaar ne loolu mi ngi dalee ci Suleymaan waaye loolu dalewul ci Suleymaan loolu moom ca faraa ina yu njëkk yàlla dale am na ñuy yéeg sax ba di ko yóbbu ba ci yonent yàlla Idris waaye Idris moom liñ koy duural defu ko Idris dañ ne moo njëkk def abajada tabax ko ci ban weer ko ba mu wow lakk ko mu nekk araf yu am jëmm araf yu am jëmm yooyee nag mu tabaxoon ci ban weer ko ba mu wow mu lakk ko ba mu ba mu ba ba ba mel ni ndaay nga xam ne dootul seey mu bàyyil ko fi ay doomam ne leen exemplaire yaa ngi nii su ngeen dee bind ngeen di bindee lu mel nii loolu mu yonentu Yàlla Idris moo ko def moo njëkk a def abajada ci ban lakk ko ci ay eh, lakk ko ba mu ñor nga xam ne day dëgër këcc comme ànd yooyu jóge Mali nga xam ne du toj maanaam mu ngir bañ doomam ya fàtte ko loolu day diri saa ko def waaye lañ koy wax yëpp naan da daan tombak da daan ramloog da daan def loolu yëpp dara du ci dëgg loolu yëpp bie di gis dara du ci dëgg ab yónent ku yàllay wax ak moom di ko yónnee ay ndawam muy wax ak moom du rëdd ci suuf di tomb du rëdd ci suuf di tomb te islam jii li ci araam te araamutoon bu njëkk niiw na waaw niiw na de xam nga am na benn kilifa bu fi doon wax ci wàllu Suleymaan bun Daawud ba wax ci yi deme noonu wax ci yéen si yàlla Daawud yi demee noonu bay wax ne araam yàggut a xew ma ne ko déet araam yàgg naa xew kat bu araam yàggutoon a xew kon bu yonent yàlla aadama amee ñaari doom yi doon ay seex seex bu nekk am ab seexam yàlla du ko ne seexab xaabil aram na ko na ko abil jël xaabil aram na ko na ko xaabil jël aram aram a nga tàmbalee ca bu leen ca gën garab gi ca ca àjjana loolu kay mooy haram loolu kay leen nañal haram moo nga tàmbalee ca na fa yàlla doon wax muy aadama naan ko lekk leen fépp ci ay fu leen neex dugg ko génn waaye nag bu leen ko jege haram a ngoog loole mooy sembuli si arab ba ëgg si fii tey garab googee buñ la ko toppaloon di la ko waxal ba mu jeex dangay xam ne garab googe ab symbole la rek waaye ay jikko yu bon yi ne ci àddina moo taxawee garab googee jikko yu baax ya itam di sajaratum ba taxawee garab ga ca des waaye ah, ni ko sëñ Cheikh Ndiaye waxee moom ni la demee am na yu ñuy def ci lislaam boole ko ci te kiifar la waxuma nag ci tur yi tur yi moom duma ci wax waaw ndax yonent bi day ñaan yàlla di ko wax na yàlla maa ngi lay laaj ci sa tur yi nga xam ne wàcce nga ko ci sa téere yu di la laaj ci sa yi nga xam ne wàcce nga ko ci sa téere bi di alxuraan di la laaj ci sa tur yi nga xam ne xamal nga ko ñi la soob ci sa jaam ñi di la laaj ci sa tur yi nga xam ne istasarta bi fi ay ilmil xayb indaka kon yonent bi dafa xaaj turi yàlla yi ne am na turi yàlla yi fi nekk te wàccoon na ci tiir yu njëkk ya te am na turi yàlla yi fi nekk yàlla daf ko jàngal ñi ko soob ci jaamam ñi am na turi yàlla yoo xam ne yàlla daf ko def ci alxuraan ji ngeen di ko jàng am na turi yàlla yoo xam ne yàlla daf ko fii diggee yoo jàngalu ko kenn kon nag turi moom duma ci wax ndax li tax tur duma ci wax yeneen bi daa saxal ne am na tur yu yàlla am di ko jàngal ñi ko soob ci jaamam ñi waxuma ay talsam de ay tur man xam naa ci jinni ba demee ci mas ab chia eh, ci ci ci ci al jawsa duaa duaa ul jawsanul kabir di ko fekk jinni turi yàlla ma fa te tur yooyu ay turi arab la waaye boo de gisee alxuraan am juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent mënees na cee génne yeneen tur yu dul yooyu waaye tur yooyu boo ko ci génnee ba noppi day teg tekki eh, maanaam la muy tekki yeneen juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent yi daf koy làmboo moo tax ñu génne juróom-ñeent fukk ak ñeent waaye mën nga ciy génne yeneen yàlla nag am na juróom-ñeent fukki tur ak juróom-ñeent yu nekk ci alxuraan yoo xam ne ku ko ci ñaan mu may la nangam ak nangam bu leen di ñaan ñaan leen ko ci tekkiwul ne yooyu dong dong la am tekkiwul ne it yooyu dong dong dong dong dong am ci alxuraan loolu moom ñu xamul ñoo koy wax waaye lépp lu boole ci ndogum sol mi ndog ak sol waaw ndog mi ak sol mi nga xam ne da ngay dagg ay xaatim di ko sol tur yi ñuy sol ci biir xaatim yi day turi yàlla yii la di asmaa daal gis naa waaye kaare yi kaare yooyu moom ñoom firaw na ñu ngi ko fi fekkoon xaw ma fan la jógee nag ba ñu waaye ñoom firaw na ñu ngi ko fi ñu ngi ko fi fekkoon xam naa ne nag niroo na ak architecture man léeg-léeg ma gis xaatim yoo xam ne yii moom damay wax ne xaatim bii moom tee ma ko xaatim tee ma ko xaatimal <laughs> maxam yi ñu tabax ko mu nekk tabax bu yéeme ndax xaatim yi yéeme am na waaw ay ay yoo xam ne daal di jërul ñi di ci dugg waaye daal li ma bëgg a leeral daal mooy dog daal moom liñ ci sol moom turi yàlla la yu ne ci alxuraan waaye ndox mi ñuy dog li ci sol moom loolu moom ca ca jamono na ba léegi mi ngi si ku ci bëgg a xam lu leer demal ci tafsiru Qur'aan al asiim bu imam imam Tantawi dina la ko ca leeral ba mu ne nañ ba nga xam ne xaatim moom eh, bokkul ci lislaam taare yooyu bokkul ci lislaam dañ ko fay fekk xëy na nag lañ ca daa def ñoom la la jullit ñi dindi di ci dugal turi yàlla waaye nag cosaanoowul ci loolu yeneen bi tamit uktub waxuñu ko ko benn yoon xul rek qul innama ana basar mislukum mën na ko wax uktub déedéet du ko wax uktub mu xul wallaahu yàlla di wax yeneen bi xul la koy wax waaw la koy wax ba ne lislam ba jeex uktub waxu ko ko fenn kon ginnaaw yeneen bi waxuñu ko fenn uktub te itam saaba yi mu doon bindloo alxuraan lañ bind te alxuraan a wàccee ci yàlla kon xaatimi doxal yi fan la jóge te Muhammad daawul bind Muhammad daawul bind kenn yàlla tënd ci tënd ci sellal